feebaru ngaana nag di feebar boo xam ni yàgg na fi lool te doomu jàngoro ba koy joxe nag di rek bacille de myobactérie leprae muy nag jur njeexital yu bon ci wàllum sidit ngaana nag ñu rek dindi ko ci lépp luy problème de santé publique ci atum 1995 waaye nag ma ngay wéyal di nekk ci suñu biir. ñu ngi ci 150 cas pour le moment 150 cas yooyu nag mooy li nga xamante ni euh, moom la ñu recensé. ci euh, trois trimestres yi. zone yi ñuy gën a gis euh, feebar bi ñeent la ci Sénégal ñeenti région la région bu ci mel ni région de Diourbel région de Dakar région de Thiès ak région de Kaolack. fii ci Sénégal nag am rek ab programme bu ñu tëral ci atum 1980 loolee nag di xeex lépp lu jëm ci ngaana. c'est dans le cadre du suivi évaluation. nag dafa bokk ci xayma bu ñu doon amal ak tàggat bi ñu doon amal ci lu soxal dépistage amal nañ gëstu ci lu soxal dépistage ci li nga xam ne moo di chimioprophylaxie ci li nga xam ne moo di cas contact yi. à la chimioprophylaxie post exposition pour les feebaru ngaana nag nekk rek ci lu ëpp téeméer ak juróom fukki réew te it ñi am boobu la jàngoro ñu leen di beddi ci anam yu bari. waaw village de reclassement yi ko ni nga ko waxee neuf la ñu au tim dafa am benn loi mars boo xam ne leen régir te boo demee dans la cartographie du Sénégal administrativement parlant ces villages de classement n'existent pas kon ni ñuy interpellé le chef de l'État monsieur Macky Sall vraiment mu dimbali ñu ci loi boobu ñu dindi ko. ci atum 2019 nag ñu rek xamle woon ni ci àdduna bi yépp lu toll ci doomu aadama amoon nañ bile jàngoro ci loolee nag téeméer boo jël fukk yi. ay xale yu amagul fukki at ak juróom lañu te ñu bari ci ñoom nag yeex nañu rek amal seen dépistage ci 2012 nag Sénégal amoon rek lu tollu ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ñeenti kaa loolee wàcc lool ba dal ci rek téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci 2021 jàngoroy gaana nag fii ci Sénégal di wàññeeku bu baax waaye nag terewul kilifa yi di rekk amal xeex bi ngir jële ko fi.